seen bëgg-bëgg Digital Store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ko toog seen bureau Core T4 Encore X4 ak Shark x ak ñoo dëgër te méngoo jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di IP68 boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nango garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñu boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien. dara mënta am lu dul wax yàlla te li mu wax rek kay am te kenn mënta amal dara amal leneen lu weesu li yàlla wax ni moom mooy am kon ñu dikk ci nashhadu googu mooy deuxième point bi bu ngeen xoolee nashhadu li ko composé ñeenti araf la nuun la sinu sutooy xël kubeer ak deel nuun bi di cinquante sin sutooy si di mille xël kubéer gi di cinq del gi di quatre muy mille cinquante neuf xaalu nashhadu nuun gi mooy nas sin sutooy si mooy seytaan xël kubéer gi mooy xawaa del gi mooy dunya xanaa gis ngeen lii kenn ku dina gis nga ci sa bopp ñoo ngi ci biir école bi ñu ngi ci biir salle d'examen centre d'examen bi war a toppatoo ñeent yi muy nafsu seytaan hawa ak dunya kenn ku ci nekk war ci def yitte ndax xamoo kañ la dee di dikk ndax dee mi ngi dikk ba noppi ñu bëgg ko fee bàyyi déplacer maintenant en fait les enjeux ci leneen loo xam ne loolu taxul woon yàlla bàyyi te bala ñu liggéeyal yàlla ci kaw suuf ñoo ñu régler problème bi ba pare ndax ko ilay si wasilat wa jaahidu fi sabili wa jaahidu fi sabili mooy mujj mais loolu neex naa misaal ana kan moo fiy jóg fi mu nekk nii état bi am euh, euh, benn euh, jeune ne pas benn Euh, agence wala dara boo xam ne daf laa bëgg a liggéey loo te agréé wu la wala boog benn euh, organisme wala euh, benn benn benn benn benn benn benn këru liggéeyukaay rek <clears throat> mu mu gën a simple pour état bi liggéey loolu dafay lay ba noppi da ngay déposé bu mu agréé càmbar la agréé la soog laa mën a liggéey loolu moo xam ci fànn gu mu mën a doon nag kon agrément boobu tamit il faut da nga koy am te mënoo koo am te réglé woo équation bi ba pare kenn du ko am te réglé wul équation bi malheureusement nag ñun jubóotuñu ci loolu ndax ku réglé équation bi dafay neex a xam dafay neex a xàmmee du mbirum baati mbirum saayir su leer nañ la ndax day doon nit koo xam ni aw yiw rek lay wax yéene moom dama koy jëlale lim yéene boppam la yéene ñëpp aw yiw dong lay wax waxuma du wax dëgg de dëgg moom yàllaa ko moom te dëgg fu mu jotee su koy wax waaye bu koy waxit dana ko wax ci waxin wu rafet aw yu rek lay wax te aw yu dong lay jëf itam muy niyatul xayri fexlul xayri ak xawlul xayri kon problème boobu ci boppam lañu ñu war a déem a taxaw nag taxaw ci tuuti muy deuxième point muy jàngoro ji dal doomu aadama ba xàmmeetul sax boppam xamul boppam xamul boromam xamul lu ko bàyyi ci suuf ba mu mën a tooñ mbaa mu def lu mu war def ma rappelé waat rek ndax euh, wax naa sanq ni doomu aadama dañ ko bind ci am njaxas bind ko ci mu néew doole bind ko ci mu gaaw fàtte bind ko ci mu yàkkamti bind ko yi tamit surtout ci mënta xam lu bari moom doomu aadama waa seetlu ma yii mi ngi bëgg a bari seetlu ma kun bind ci nga néew doole amoo kàttan ñu bind la ci ngay fàtte ba noppi gaaw a fàtte la ñu bind la ci nga yàkkamti ñu bind la ci nga ngay fàtte ñu bind la ci mënoo xam lu bari xanaa kooku déjà yow bari ngay limite bari nga ay limite alors léegi yemu ci loolu nag borom bi nag jox ñu nag ay énigme yoo xam ni dañ ko war a régler dañ ko war a résoudre jox ñu ay équation yoo xam ni quasiment ay plusieurs inconnus lay doon nit ki war koo réglé te mi ngi ci biir salle d' bi te su xisee génn salle d' examen moom résultat rek lay dégluwaat mooy ku génn àdduna fi mu nekk nii bis pénc ba ngay xaar alors kon ñu dëkk ci tawat jooju wax naa leen ni nashhadu li tax loolu dellu ci ak munafiq ba tax borom bi di wax ne isa jaakal munafiqoona xaalu nashhadu nashhadu googu ñeenti yëf rek la tajale xam ngeen ni nuun gi mooy nafs te waxi yàlla laay leen di wax borom bi subhanahu wa taala moom mooy ki amal bakkan moo amal bakkan li ñuy wax bakkan naan man man man man man moo xam ni dóor nga benn cër ci yow te ki nga wax ci yow la bokk man man moomu man moomu mën a wax naan man maa moom sama nopp naan sama bët man moomu di nafs borom bi moo ko bind ci lan moo ko bind ci nature muy bijji ki mu àndal di ko jëme ci lu koy lo musiba loolu yàllaa ko dogal inna sa amaara bi suu yéen ñëpp jàngeen ngeen ko Cheikh Saalihu Mbàkke mi nga xam ne dafa demoon ba mel ak boroomam noo xam ni mujj na sëñ Saalihu boo ko séenee sax dangay ngay yëg sa présence divine daf daf waaw vibration yi énergie bi muy dégagé dafay rëy ba boo fa jógee lu bon bon bon loo sàggan sàggan sàggan da nga toog une semaine mbaa weeru yàlla woo xam ne day mel ni da ngaa gis lu la jommal da ngay yëg cette présence divine la daf lay topp ca cafka gi daf lay topp foo ko ma a fekk lii may wax ñu ko mën a seere ñoo ngi ci biir réew mi doo toog ak sëñ wu lu yàgg mukk te déggoo mu ni haasihi nafsi amaara bi suuy ay rangoñom wadd ci suuf ndax loolu ñun dañ koy yéem rek toog yéem ko daan cey sëñ bi cey sëñ bi nafs googu suñu bopp nag ñun lan lañ koy wax te borom bi ñun waskur rabbaka fi euh, <coughs> est-ce que ñun loolu dañ ciy jommet waaw waskur rabbaka fi nafsika tadarruhan wa xiifatan wa duunal jahli min al xawli bil xuduwi wala seli wala takun min al xaafilin sa bakkan bii naan man sama nopp sama sama bëñ sama bakkan sama sama sama sama sama sa bakkan boobu nga war a liggéey ci fàttali ko boromam bi ko moom waskur rabbaka fi nafsi bala ngaa jéem a waar kenn yow waarul ba noppi ci sa borom bala nga ni ma fàttali leen yéen fàttalil sa borom ba non pas la communication war a doon ay waxi kese waaye communication bi doon une communication non verbale nga xam ni sa jëmm mooy fàttali yàlla sa doxalin mooy fàttali yàlla sa melokaan mooy fàttali yàlla waskur rabbaka fi nafsik waaye gars yi moom mokkal laay yeeg xadis la def rek taxaw naan leen nañ fàttali yàlla nañ ragal yàlla nañ ragal yàlla taxul kenn ragal yàlla nañ fàttaliku yàlla taxul kenn fàttaliku yàlla loolu mooy dëgg kon programme biñ ñu jox te ñu war ko koo yittewoo loolu ci la ñu war a jëm mais malheureusement on a occulté l'essentiel te xam ngeen ko inna sa amaara bi suu bakkan bii moo ni bijj rek di ñu jëme ci alkaande kon léegi comment faire pour fexe ba bakkan bi dootu la bijj jëme la ci alkaande waaye yow yaa koy orienté loolu du am du tik wa tak voilà le programme bi war a am loolu nag moom mooy doon troisième point bi nga xam ni mooy doon deuxième partie live bi danaa ci dikkaat incha allah beneen yoon ni sëñ Touba rek la problème boobu mu ñu ama am solo kon bakkan ginnaaw yàllaa ko bind ci nature muy bijji nit ki di ko yóbbu ci lu koy alak naka lañu war a mën a def ba bakkan boobu duñu bijj di yóbbu ci lu ñuy alak au contraire ginnaaw mënuñoo taqook moom tant que ñoo ngi dund duñ taqali ko nan lañuy def ba bakkan boobu ñun ñoo koy maîtriser ñoo koy orienter voilà un programme boo xam ne dana lay xamal yoon wa wan la ko teg la ca ba loola nga mën caa am résultat waaye gaa yittewoo ci lool de moom élève bi au lieu mu ñëw dugg ci biir école bi am na les meilleurs professeurs war a jàng si moom day taxaw ci buntu école bi nag naan man j'ai la meilleure école sama école a fi gën samay professeur a fi gën sama école a fi gën après samay professeur a et après mais yow lan fay jàngale jàngoo ko lañ bëgg a tàggat nit ñi ngir ñu xam ko xamoo ko xamoo ko donc sama école a fi gën du du wax ji sama professeur moo fi moo fi man moo fi dàq jàngale du wax ji bien vrai que c'est très important mais li ëpp solo mooy est-ce yow sa école boobu gën ak sa professeur yooyu fi dàq jàngale feeñ na ci yow ci sa xam ci sa man-man ci say capacité ci say aptitude est-ce que feeñ na ci c'est ça le plus important malheureusement ñun dañu occulter lool ñun ñoo ngi ci sama école fi gën rek ku ne naan ko déedéet sama école fi gën sama jàngalekat sama professeur fi gën c'est bien ku sañ na ko waaye nag jërul ñu ci xuus lool ndax li ñuy xaar duñu xaar ci yow loolu li ñuy xaar ci yow mooy li mu def ci yow ba mën a feeñ ci sa melokaal mën a feeñ ci sa taxawaay mën a feeñ ci say jikko mën a feeñ ci sa doxalin sa comportement de tous les jours loolu la ñuy xaar ci yow loolu la ñuy xaar ci aspirant bi loolu la ñuy xaar yi tamit ci jullit bu ne mais malheureusement xam naa ni xam naa ni wa kasiran minhum faasiqoon xam naa li moom ay faasix la ñuy doon mënuma ci dara keneen du ci man dara yàlla moo ko dogale noonu alors léegi nag kon première élément bi mooy nafs ci nashadu bi nafs mooy premier élément bi te gis ngeen ni ko alxuraan leeral wan nañu ni effectivement maa leen booleeg bakkan bi nga xam ne maa ko bind ci nature yi da leen di yóbbu ci lu leen di alal alal moo ci topp nashadu shin su tooy si mooy seytaan borom bi subhanahu wa moo nu wax ci seytaane mu ne ñu inna seytaanu lakum aduwwun fattaxiduhu aduwwan seytaane daal seenu noon la nangeen ko jàppee am noon ñun déjà li ñu daal seytaane ñu ko teg ci coobareel yàlla bien sûr ñun sos nañ suñu maam aadama dëkkloo ko ajjana tey ñun ñii ñoo ngi kenn ku ci ne di kër kër yi ñu da ngaa bëgg a dellu àjjana yooyu te pexem seytaane tax ñu génn fa ci coobareel yàlla pexem seytaane moo tax ñu génn ko ci kon yàlla bu nee ni kii mooy seenum noon jàppe leen ko am noonu war nañ koo gëm te bàyyi ko xel te xam ni ku fi am lu la naqari seytaane la ko teg kon ñun duñu ay noon ci suñu biir seytaane mooy sunum noonu nit ki mën ngaa bañ a d'accord ak moom mën ngaa bañ a bokk moom ay xalaat mën ngaa bañ a bokk ak moom sax jubluwaay ak i gis-gis waaye nag duñu ay noon seytaane mooy noon bi seytaane mooy noonu mbokk yi nañ bàyyi xel loolu seytaane mooy sunu noonu kon nag seytaane moom nga xam ni borom bi subhaanahu wa taala wax na ci lu yéeme te nit ñi war a bàyyi ko xel wala xad sadaqa alayhim iblisu dannahu fa tabahu ila fariqan min al muminin dëgg seytaane sax mujj na dëggal na fi mu nekk nii la mu doon xalaat ak la mu mébétoon ak lépp xa seytaane la mu bëggoon mujj na ko am li ëppoon ci ñi gëm seytaane lañ mujj topp waaw loolu xanaa dara gënu ko garaw fata bon ilaa farixan lu tuuti ndare du lu néew rek ci ñi gëmoon ñoo topp seytaane ndare ci lu tuuti ci ñi gëmoon nag la wax waxatul sax naansu ñi gëm la wax kon lii est-ce que wulu woon a tiital nit ñi bañ naan lii Seydina Ousseynou waxoon nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo jur waajuroo mu jigéen mu soxna Fatima Zahra nga xam ni dafa am lu mu gisoon ñu nettali ko ko wala boog am lu ñu ko waxoon ci ëllëg koo xam ni daa war a dem laata muy dem àjjana ñu koy repêché dem na sawara def fa junniy at mu jooy daan ni xamul sax ko moom moom lay doonam de xoolal moo boobu humilité ak xoolal ni mu jegee Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam dib sëtam ak xoolal ma taxawaay boobu ak ni mu demee ba xam ci yàlla sañ-sañ boo xam ne jàpp na ni kooku mën naa doon moom kon nag borom bi moom moo ñu wax te wax yàlla nee naa leen du dañ mukk yàlla moo ni seytaane daal la mu doon mébét ak naal mujj na sax dëggal na ko réussir na ci lu baree baree baree bare ba sax ñi gëmoon lu tuuti lu tuuti ñoo ci doonul ay taalibeem topp ko moom seytaane wax yàlla la kenn du ko dindi kenn ku mënta dindi kenn du ko dindi sëñ Tuubaa mi nga xam ne dafa noppalu moom dafa ni chitu lazi chaal illa huwa illa yachaau ma chitu bila durin wala ahawsiya fi daare ni ma achaau bi kawnihi yaxluqu ma yacha man du ma bëgg te yàlla bëggul sax wax yàlla kenn du ko dindi coobare yàlla kenn du ko dindi li sëñ Tuubaa waxoon rek nee na yàlla ku xam ci moom dara doo ko mooy mukk ndax bu yëkkatee yaram ba nee na danga naan siiw mucc ca téyel sa yar te wax loolu yàlla bu yëkkatee yaram ba ku danga naan siiw mucc ca te mbooleen ñi mu jox cër yi mu leen jox ñëpp du mu juyoog yàlla mais seet ko ci seen bopp rek kenn ku ci nekk tey jii bu fekkonte ni danga am ay responsabilité mais créer sa entreprise ndax danga nga jëli koo xam ne leer na ni kii daf lay yàqal boo ne ko defal A mu def B boo ne ko tournel droite mu tourner gauche mais doo ko def kon nit ñi nga xam ni déggal nañ la te bëgg nañ sa réussite mais ñooñu ngay dénk li ngay dénkaane booy taxawal sa cabinet kazalika boo doonee présidente ñi nga am yaakaar ci ñoom ni li nga leen sant la ñuy def it ñooñu ko koy dénk yàlla nag yàlla kon ñi muy jox ay mbiram di leen dénk ay mbiram ak i secret ñooñu du ñu jàmmaarloo ak yàlla du nekk doonuñu iblis mbaa bokkuñu ci njabootam mënul nekk. kon nag <coughs> loolu di lu am solo muy seytaane dëgg dëgg kon mooy noon bi nanu ko jàppe am noonu kon ñoo ngi ci nash léegi nag mu des du mu des ñaar wax nañu nafs ak seytaan léegi nag ñu dëkk ci xël ku gi mooy xawa xam ngeen ne xawa muy bach bànneex passion bokkut ak bakkan bokkut ak bakkan xawa c'est la passion bànneex ñëpp ko am ñëpp ko am dégg ngeen lu Xadim dafa wax ni xawaanantaxaalil xaq wala xaqu diinu na kon moom sax mënta tàgg xo tàgg bopp bànneex waaye bànneexam nag moom mooy doon dëggug yàlla gi dong lu neex yàlla rek loolu moom lay def mu neex ko waaye leneen mënu ko def mooy doon passion te loolu muy dëggug diine gi rek xawaanam taxaalil xaq wala xaq diinu na alors kon bànneex deesul tàqalikoo moom mais ginnaaw bànneex dafa am nu ko yàlla bindee ndax boo seetloo kenn ci ñi wuutu woon yàlla ci kaw suuf muy daawudu alayhi salaam ana lan la ko borom wax xam ngeen ni daawuda yàlla da koo tànn def ko mu wuutu ko ci kaw suuf ba noppi mu yónni ko wooteloo ko daawuda moomu nga xam ni kon yàlla gindi na ko moom la borom bi wax ni ko soo toppee sa bànneex da nga àl ko wala tatibi'il hawa fa yudiluka an sabilillah waaye wala tati bi wala xawa bul topp sa bànneex ndax boo toppee sa bànneex fa yu dii la ko am sa bi laay da ngay daal di réer da ngay daal yoon wu yàlla da ngay réer ci liñ la doon def la tool biñ la doon bayloo danga koy daal di jaxas bu fekkee da waroon a euh, ñëw ji boo moytul da ngay def beneen phase da ngay jaxase nga doon def te lii ab yonent lañ ko def koo xam ne kenn na teblewul ne mi ngi ci am njub mi ngi ci école bi gën ci école yi kon encore une fois le débat nañ ko gën a xóotal te bàyyi ci euh, yu yi ñu amaluñ njariñ daal vraiment vraiment man de amaluma njariñ moom wax dëgg yàlla waaw amaluma njariñ kon loolu ci boppam dañ ko war a seet te boo seetloo ci setantalaat ci alxuraan da nga gën a gis lu ko gën a dëggal euh, te dama koy wax souvent gis ngeen sëñ Saliou mbakke ak dimension ni mu toll Cheikh Salih am na woote màggal appel boobu man maa ngi koy wutaat ba léegi maa ngi koy seet waaye gisuma ko CD bi ma ko amoon ci CD laa ko am te CD ba dafa dafa dafa dafa dafa dafa kii maanaam mënatu ma am lecture bi ma CD yi ni ni bindoo woon euh, jëm naa ko récupérer waaye aw ma ci pexe xam naa maa ngi ñaan itam képp koo xam ne yaa ngi dégg sama kàddu te am waxtaan woowu nga dimbali ma ci waxtaan woowu man jàpp naa ni képp kuy ab murit waratoo xëy te dégluwoo ko ba noppi bala ngaa tëdd nga déglu ko ba pare man moom jàpp naa loolu yaakaar naa sëñ Saliou dafa woote màggal gi maa ngi fàttali ndigalal sunu sëriñ sunu yaakaar la munu waxoon ci bu bis bi dikkatee fu ñu fekk ñu santale ko yàlla ci ñu ko borom bi defar di fàttali kaamil yam ci waxoon nag di fàttali wala gàmmu gi bi mu waxee loolu daal ni fàttali sama mbokki taalibe yi murit yi ñuy jëfe ndigal te bàyyi topp njort njort nañuy jëfe ndigal te bàyyi topp njort sam xel lu mu dem nga ne ci rek sam xel lu mu dem nga ne ca ab tànk bu jóg dey ci yoon rek lay jaar tew yoon lu mu dëng dëng dëng cib dëkk la jëm rawatina yoonu jub yi di siraatal mustaqim nañu jëfe am xel nag mën naa yéeg ci kaw ay garab xuus ci ay teen xuus ci ay géej waaye tànk bu jóg moom ci yoon rek lay lay jaar tànk bu jóg ci yoon rek lay jaar xam nga lu sëñ Saaliw dañuy jëfe ndigal dañuy jëfe ndigal daan ni afarayta man istaxasa ilaahu hawaahu waa laaye bi lu mu jotee ñun murit yi sëñ Saaliw murit la doon waxal lan la laaye bi jote ak murit yi afarayta man istaxasa ilaahu xanaa gisu leen ñi nga xam ni seen bànneex lañ def yàlla laaye bi lu jotee ñun ñun ba sëñ Saaliw wax ko te mu leer la ni li mu wax lañu waroon def introspection xool li mu ñuy wax lan la ah, waaw aaya ja fan la yàlla lam njëkk a wax ci ñi jàppe seen bànneex yàlla nga xam ne li leen neex rek fi mu ne booy wax sax li ñuy njëkk wax naa ni wax ji ndax dëppoo naag ay xalaatam moom loolu mënta nekk nit ñi mën ak yow mii sax lu ñu bëggante bëggante wax dëgg yàlla mën nañoo juyoo ci xalaat waaye nit ñi moom dañ ni la sëñ Moussa laa waxoon rek la ñuy def dan lay doxali seen digganteek sa borom ba pare bëgg a dox sa digganteeg sa borom yow nga xam ne ñoom ñoo lay conditionné fi mu nekk nii li nga war a def ak li nga war a wax loolu mënta nekk loolu mënul nekk kon gis nga li sëñ Saliou wax laaye jooju lan lan joteek moom ba sëñ Saliou di ko wax ci wax jëm lan waxal ñun woote màggal ku ne xam na ne murit lay waxal kon su nee ñu xanaa gisu leen ñi nga xam ni seen bànneex lañ def yàlla lanu yàllaal seen bànneex mooy seen yàlla boo waxee lu leen neex ñu approuvé boo wax lu leen neex ñu ne waxu fi dara yàlla lan la njëkk a wax dafa ne ñooñu ci xam-xam laa leen di njëkk a réeral ñi nga xam ne seen bànneex lañ def yàlla ci xam ak xam xam xam laa leen di réeral d'abord ba pare dama leen di réeral ci xam ñu dem ba jàpp ni ponkal lañu ngand lañu yaakaar ni xam nañ fekk na yàlla réeral na leen ci ci ay pexeem ba noppi sakk seenu dégg muur seenu gis ba noppi kaste seenu xol walhiyaasu billaahi yàlla na ump ñëpp yàlla na ci ñëpp mucc ana kan moo leen di gindi ginnaaw li amul kon gis ngeen ñuy wax xaw mu am na foo mas a gis vivez votre passion jusqu'au bout man but man la boo ci yeggee xam ne boo yeggoon doo ko suivre de kenn du topp sa sa bànneex léegi programme bi ñu war a def ba nit ki not bannee xam ba nga xamante ni dootul nekk ci par parloo not bannee xam ba nga xamante ni dëggu yàlla gi rek ci moom la féetal mooy li koy neex léegi mooy yëngal ab xolam naka la war a mën a def ba àgg ci stade boobu nga xam ne théoriquement waxuma di ko xam ko nii rek mais dem ba man cee yegg ba nga xam ne dëgg bu daloon ci kawam sax mu ni man nii ma juum maa tooñ li ma def mu dul noonu bu demoon ba kenn jàpp ni mooy noonam bi gën a rëy wax lu am solo danaan li wax nii am na solo li wax dëgg nan la ñuy def ba àgg ci stade boobu te pourtant lii moo fi indi woon gaañu baax ñëpp wax naa nag deuxième partie bi ci live bi dinaa dikk sëñ Touba ni mu réglé loolu ba nga xam ni ku xam ci sëñ Touba dara doon par parloo ku xam ci sëñ Touba dara yaa ngi ci beneen dimension beneen dimension nga nekk doo nekk ci dimension yi ay xëccooy dara jaag ku kaweeg nangam nekkatoo ci yow da ngay yëg ni nekkal nga yàlla surtout te lu yàlla def neex na la alors loolu mooy deuxième troisième élément bi quatrième bi nag nga xam ne ci lay daaneele mooy dunya léegi seetlul lii ci nature doomu aadama boole ñu asine ñu seytaane muy sunu noonu te seytaanee ñu fi jiitu moo jiitu suñu maam aadama seytaane fi mu nekk nii gis nga xam-xam moo ko ëppale ñëpp loolu nag waxtu woo ma dul may ma naan koo leeral waaye kenn sutu ko ci xam-xam saytaane te kattan gi borom bi jox sallallahu alayhi wa sallam ci defar ak lu baax kattan gu toll noonu la yor ci yàq ku ko yàlla seetaanal fi mu nekk ci jaam yi léegi mu rax seen tax tax seen moom moo nu fi jiitu mi ngi fi di nekk ak ñun ba noppi bu ñu demee bàyyi ko fi ba ba ñuy soob borom bi kooku la yàlla wax ni mooy sunu noonu boole ñu bakkan boo xam ne dañuy bijj di jëme ci lu nu alak ba noppi boole ñu bànneex boo xam ne donte da ngaa jub boo toppee sa passion da nga réer ci toolu yàlla ana yan programme la ñu war a développer pour mën a résoudre en fait ces équations la pour lever énigme yooyu loolu mooy enjeu bi quatrième bi nag ñu boole yii yëpp ba noppi ba noppi yàlla sànni ci benn pàkk boo xam ni pàkk bi illusion la en réalité li nu jàpp ni moo am ak li am amul ak ak li am bokkul li nu jàpp ni mooy li am ak li am en réalité bokkul wa ma xayaatu dunya illa mataaul ghurur alxuraan da ko wax waxati ko ay yoon yu bari kon ndeke ñun ci illusion lañ nekk nii waaye mënuñu ko comprendre mënuñu ko comprendre tant que demuñu ci ba sukuraatu si dee taxaw allahu akbar sukuraat le processus là bu enclenché ba euh, malakal mootu ñëw tàmbali di ràcc ruu gi ci la nit ki soog a conscient ci ndekete moom ci illusion la mu nekkoon sphère bi sphère illusion la wa jaat sakratul mawt bil xaq zalika ma minhu taxyid seetlul ma lii nit ki nga xam ne dem na ba sukkuraat bi ñuy faatu ci lay soog a xam ak dëgg kooku deful ak dëgg ci ci ak dundam kon mbokk yi bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu wanteer suñu dund gi doomu aadama ëpp na lii bu ñu fowee suñu dund gi bu ñu bokk ci ravil yi ñi yàlla di wax dañoo sàggal waskur rabbaka fi nafsika tadarruhan wa xiifatan wa duuna aljahli min alqawli bilxuduwi wala sali wala takun min alxaafilin nañ bañ a bokk ci ñi sàggan sàggan di waxi laayakee xadis rek te dara lijjanti woo ko sa diggante ak sa borom yaa ngi dugg ci classe d'examen bi ñu jox la épreuve bi nga nekk fa naan way celui là li mu wax ak kee la mu wax ak kii nangam ak nangam te yow traité woo sa feuille d'examen bi ñu la jox pour jéem koo joxe mais kooku sàggan nga dëgg dëgg kooku mooy ku sàggan te la ko waral mooy borom bi daf ñuy defal kashfu ci jamono yooyu moo tax gaa ñi xam naan naka lañu war a fexe ba dee te deewoo naka nga war a fexe ba deete te deewoo pour mën a percer en fait ces mystères la pour mën a génn ci cette réalité la nga xam ni c'est une fausse euh, réalité dëgg-dëgg du lu am nga génn ci ba xam li am lan la laxat laxat kunta fii gaflatin min hada fa kachafna anka xitaaka fa basharaka al yawma al hadid kon borom bi moom mooy dindi ay saatiri yoo xam ne dafa nekkoon ci ñun ba joxoon ñu perception ñu gis leneen fekk na li am ak ñun liñ doon gis bokkul mbokk yi lii war nañoo doy programme war nañu doy programme ñu nekk ci balaa dee di dikk kon adduna yi tamit gis nga ko noonu la demee kon su may résumé mbokk yu tedd yi doomu aadama champion du monde la woon champion du monde boo xam ni champion du monde universel mondial nangam nu la neex mën nga ko waxee waaye mooy ki nga xam ne daal moo jël raw gàddu bi bi ko yàlla joxee raw gàddu bi ci coobareem nag suscité na fi mu nekk nii nag envie jalousie et cetera nit suscité na ko bi mu ko suscité nag am ñu rébellé wu nangam nangam coow ca Iblis wax na ñeen wax na malaaka yi sax dugal nañ ci seen kàddu yàlla jox ko trophée bi aj ko fam ko aj jël dugal ko àjjana jël na raw gàddu bi moom teraanga yépp yàlla jox ko moom aadama ak doomam njabootam bi mu ko ko joxee nag aadama dem ci ay mbokkam di leen wan raayaam bi par exemple ñibbi si ñëw na senegal daw na ba jël raaya bi muy raaya bi gën a mag ci raaya yëpp bi mu ko jëlee ñëw di ko wan ay mbokkam bi mu jógee ci benn dëkk di dem ci beneen dëkk am ñu ko defal guet-apens jàpp ko ay rebelle biñ ko jàppee yóbbu ko tëj ko ci barab biñ ko tëjee ci barab xam naa torturé nañ ko ba ay sidditam léegi dafay mel ni dafay bañ tànk yi nangootul à la ciy mën a dox à xam naa tëju bu yàgg bi tamit dem na ba gis bi mi ngi tàmbali am problème nga xam ni gis bi neexatul tànk yi am na problème gis bi neexatul te yi tamit waxtu wu ci nekk mi ngi am ay palpitation xol bi di yëngatu nga xam ni bu jógee sax tàmbali léegi di sonn waaye nag mu teg ci leneen mooy léeg-léeg xel mi dem xel mi dem dellusiwaat xel mi dem dellusiwaat mbokk yi champion du monde boo xam ne dafa jël raaya bi gën a mag war a koo dem dawiwaat ñaari at ci kanam mu des un ñu jàpp ko otage ne leen benn torturé ko ba ay tànkam di bañ am xelam di dem ay bëtam fi mu nekk nii neexatul waaye muy am palpitation mbokk yi laaj bi ma leen di laaj mooy kooku nan ngeen yaakaar ni la war a def pour défendre titre boobu pour mën koo conserver nan la war a def moom pour défendre titre boobu pour mën koo conserver loolu mooy doon suñu ñaareelu partie waxtaan incha allah rabbi bu fekkee yàlla dogal na di leen ndokkeel di leen béggee yéen ñëpp nag ku jege ak ku sori boole seen ñun yéen ñëpp bëgg nañ leen ngir jëmmi yàlla yéen ñëpp bëgg nañ leen ngir jëmmi yàlla ndax man kii sama sëriñ muy Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul loolu lañu ñu digal yi ba tax na nit ki lu mu war a wax lu mu mën a wax ak lu mu mën a def fi mu ne xoolatuma li mu wax ak la mu def li sëñ Tuubaa wax man lay xool moom lay jàpp itam te jàpp moo jeneen wax ju li wax te ku ma xis dégg nga wax ñaari baati seere yi man bëgg naa la ngir yàlla te mbokkoo naa la it ngir yàlla te loolu ñi ma xam-xam nañ ko ñi nekk ci association islamique yi xam nañ ko ñi nekk ci tarixa yi tamit xam nañ man bëgg naa leen yéen ñëpp ngir jëmm yàlla yéen ñëpp donc vraiment loolu <clears throat> moom mooy li ñu indi woon tey ci ci xaaj bu njëkk bi muy pàcc bu njëkk bi yàlla mi nga xam ni nag moo yoot dogal te li mu dogal rek mooy sotti bu dogalee ni danañ def ñaareelu xaaj bi incha allah danañ ko def te boobu ci la ñuy dikke nag par rapport ak ki ñu présenté tey muy nit ak jàngoro yi ko yàlla teg mu dellu ci bind ko ci mënta xam lu bari mu bind ko ci mu yàkkamti bind ko ci mu néew doole mu bind ko ci mënta xam lu bari ba noppi boole ko ak bakkan te bakkan yàlla bind na ko ci nature muy jëm ci lu koy bijj lu koy lu koy gaañ mu boole ko bànneex bànneex bi nga xam ni loo jub jub jub loo nekk nekk ci lu baax boo toppee sa bànneex da nga réer ci toolub yàlla bi ndax daawuda lañ ko waxoon te ab yonant la alayhi waaye mu boole kook seytaane muy am noonam boo xam ne fi nga ko fekk fi nga koy bàyyi nekkandoo fekk moom te moom benn objectif la def yàqal la kese waaye sànni ko ci benn sphère boo xam ne sphère bi illusion la la mu yaakaar ne moo fa nekk nekkul la mu yaakaar ne mooy dëgg du dëgg kon nag képp koo xam ne si nekk nga ci lu mel nii sa yitte war nga koo jëmee ci leneen lu dul am ay posture yu ndaw ak yu baax war nga ko waroo ko am kon maa ngi jéggalu nag ñëpp bu fekkee wax bi am na dara lu ci jubul nañu xam ni loolu gisu woon sama yéene néew dooleeg doomu aadama rek kenn amul lum ci xarañ te teg ko ci lu leer lañ mën a wax donte amul ñoo xam ne am na ñoo xam ne d'accorduñ ci moom gis naa benn dof bind benn téere damay bañ a wax sax aw